salaamaaleykum euh, gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi tedd bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen baal wax di leen baal wax euh, tey jii nag dañuy ñëwoon fii ci Sinas vraiment euh, ci CNTS pour vraiment def benn déclaration pour yónnee ko sunu mbokk artisan yi déclaration bi nag du dara lu dul dañu jëm ci benn congrès le 28 janvier fii ci CNTS di ci woon ak képp koo xam ne kii artisan nga ci Sénégal waxuñu Dakar de Sénégal la ñu wax képp koo xam ne kii artisan nga ci rek ñu ngi la ciy woo ndax olof yi dañ ne taal bu téyee tàkk boor bu ne nga koy uppee ñu bëggoon nag syndicat bii nga xam ne bii fas nañ ko yéenee wéyal te CNTS war ñu ci jàppale gunge ñu ci moo tax ñu ne dañ ciy woo artisan yépp ndax tey jii secteur de l'artisanat sonn na te yaakaar nañ ni bu ñu dajaloo ci fii war nañu mën a régler le problème di secteur dëgg la organisation yi bari na plateforme yi bari na euh, kuréel yi bari na macha allah waaye nag euh, dañ ci amagul bu dëgër boo xam ne bii war nañu mën a porter des des revendications au niveau de l'État ba tax na nag ñu bëggoon ànd ak CNTS

syndicat bu ñuy wax SYNAS syndicat national des artisans du Sénégal manam li lu waraloon li tax ñu taxawaloon lool euh, syndicat bi mooy ku ne xam na ni secteur de l'artisanat day jànkonteeg ay coono yu bari dëgg la jàmbaar lañ ci liggéey jàmbaar lañ ci créa ci création jàmbaar lañ ci euh, lépp loo xam ni lu liggéey di laaj rek jàmbaar lañ ci mais nag dafa des ndax ku ne xam na ni euh, secteur bi li muy jànkonte ci ay problème bari na trop ñi ci nekk ñëpp xam nañ ko secteur de l'artisanat ku ne xam na ni lu am solo ci réew la surtout Sénégal gi ñu nekk ñi fi nekk nekk ay jàmbaar yoo xam ni Afrique de l'Ouest kenn mënu leen ci ci bépp domaine nag côté boo laal rek côté boo laal menuiserie meneen euh, côté boo laal ci secteur de l'artisanat ay jàmbaar ñoo ci nekk mais nag comme ay jàmbaar lañ ñi ngi dajaloo it di booloo ay association lépp am na fi mais doyul parce que li leen di metti bari na te seen revendication li ko mën a porter mooy syndicat moo tax ñu ne nañ taxawal syndicat pour l'artisanat ñu ngi leen ci woo nag bépp artisanat bépp artisan ñu leen ci woo ñu ñëw affilié wu ci bootu ci ginnaaw synthèse pourquoi synthèse parce que ku ne xam na ni synthèse mooy euh, ku ne xamna ni synthèse moy centrale syndicat bi gëna ré ci Sénégal donc kon ñuy bootu ci ginnaawam and dolel artisanat ñuy wo artisan yëpp ñu ñëw japp ci affilié wu ci pour suñuy revendication ñu mën ko égalé fi mo wara égg ñi ngi wo ñëpp ñu wara a dem nag congrès le 28 janvier inshallah ñi ngi wo ñëpp li appel la pour képp kuy artisan nga ñëw fekkee congrès bi fii ci synthèse ñu ànd bokk liggéeyee ngir dooleel artisanat ci kanam jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp merci beaucoup